na xam nga yooyu yëpp mën euh, soo ko ñëwee xool sax li procureur bi wax ci conférence bi dafa nekk benn chapelet d'accusation de chef d'accusation chapelet. set non dafa bëri yooyu yëpp xam nga lan la te yooyu yëpp mu visé noonu ay crime la infraction yu garaaw a garaaw a garaaw ñëw taxaw ne au Sénégal depuis quelque temps on parle de terrorisme. Mm-hmm. on parle d'attentat mais dama lay wax ne la. yooyu nekkul ay notion yoo xam nii même su fekkee ni c'est pour des considérations politiques war nañu nekk xoola di ko di ko man manier comme ni ñu ko manier affaire présentement au Sénégal parce que terrorisme mais kooku non da ngay traumatiser donc euh, waa réew mi nga xam bi yow da nga la war a sécuriser fi mu nekk nii depuis ñu ngi commencé wax personne ne se sent à à l'abri donc je simplement que bëri na mais nag procureur moom mooy moom mooy ñëw poursuivre mhm. mais il n'est ñëw na ñëw taxaw ci conférence presse ñëw na chapeler donc accusation yooyu def na ko mais kooku ça n'engage que lui ça n'engage que le procureur même su fekkee ni parce que loolu noonu mën nañ dem suba jugement mu dem kii mën na dem déjà instruction parce que ce sont dossiers yoo xam ne oui obligatoirement dafay dem instruction juge bi mën na gis ne yooyu ñu wax noonu en fait non non c'est trop comme c'est le cas donc du viol gis nañ ko fa mais même su fekkee nii le euh, le juge d'instruction suivre na ko mën na def ba si jugement mais euh, le juge ne mais ne li ngeen wax nii c'est excessif parce que lii ce n'est pas constitutif ni de terrorisme ni de euh, ni de comment ça en fait nu mu tuuti ni d'insurrection mais parce que yooyu noonu mais dafa nekk affaire bu grave en vérité par rapport aux faits man je ne peux pas être d'accord avec le procureur procureur am dafa am avis am xëy na am na fu ma ko lekk mais man euh, si li mu wax ak man ni ma ko jàngate ak li nga xam moom la yoon bi wax yàlla xam na ni ah ak li ma xam si en fait li ma xam si muy ci terrorisme je dis que c'est excessif même su fekkee ni xam nga démb dama doon wax ne euh, su ñu demee ba jugement. Hmm. Euh, soxna si je vous assure qu'il sera condamné. Ousmane Sonko. je vous assure. Ah et bon? vous vous dites que chef d'accusation yi c'est excessif. kay ma wax la kay ma wax la rek kay ma wax la. mais bëggoon nañ xam comme de comme yaa ñuy éclairer. lu tax c'est excessif. ak peut-être bu ñu koy <laughs> condamné ci ci ci ban cadre lañ koy def xam nga depuis deux mille vingt et un dañuy ñëw modifier en fait à procédure d'urgence le code ñëw xoola. prévoir ce terrorisme mais dugg si ay faits yoo xam ne bii ñoom ñooy donc des faits constitutifs d'actes terroristes te yooyu yëpp xam nga mooy lan. soo ko soo ko ñëwee jàngat. mooy li nga xam ne moom la constitution bi may ñi nga xam ne ñoom ñooy war di manifester ba nga xam ne gis nga Sénégal fu mu nekk nii dama def dara Adja ku fi nekk di manifester nga ñëw taxaw ñu lay teg dara nga ne eh, bugguma lii defuma lii je vous assure xoola li ñu naan ay trouble à l'ordre public affaire yooyu yooyu dépassé nañ ko. mën nañ la ñëw dugal na la terrorisme et ce qui se passe aujourd'hui lan moo koy gën a euh, en fait attesté mais depuis mais depuis quelque temps yow li nga tuddee léegi purge mais moo di nii en fait euh, euh, nu mu tiiti quasiment tous les tous les membres en fait comment dire. Euh, comment dire les cadres mm-hmm. mais ñoom ñëpp quasiment mais ils en prison et puis pour les mêmes. chef d'accusation